asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bégee bu baax a baax l'heure est grave waxoon naa leen bu yàgg yàgg na leen Macky Sall il est allé trop loin il a franchi la ligne rouge Macky fu mu nekk nii lu ko neex lay def il fait du mataïsme je m'en c'est ça qu'il est en train de faire moom nëbbatuwul léegi xoolatul ay droit ay loi amatul dara lu muy jomb lu ko neex lay def xam ngeen ne li xew ci dëkk bi doy na waar de Macky Sall fu mu nekk nii dictature la installé Sénégal te loolu sénégalais yi dafa mel ni dañuy seetaan loolu lu tax ñu war a nangu loolu mais imagine leen Ousmane Sonko nekk un acteur politique chef de l'opposition l'homme politique le plus aimé de l'histoire du Sénégal kooku am droit jugee ko Ziguinchor def caravane de la liberté ba dakaar ay corps d'élite waa jeune kot ko ci yoon bi exfiltrer ko indi ko Dakar ci kër góor gi këram ba pare barricade kër jambour melni ni ko def yow résidence surveillée mu bëgg def déclaration pour wax ak sénégalais yi du fi defee déclaration mais loolu lan la c'est de la dictature te il est en train de semer la terreur manam léegi ñi défendre Ousmane Sonko sax ak ñi nga xam dañuy wax lo xamné arrangeul arrangé wul Macky Sall ñooñu dañuy dem di tal sen ay kër ñi ñuy taal seen ay auto tal nañ fi auto sëñ Baara Ndiaye ñi te xam nga ku tal sa auto bu la jekkoo yow lay tal wala mu ray la ray bu gëna bon dambot invité nañ ko fi tfm émission franc fatch mu paré di ñibi jël corniche bi ñu koj ko ci kaw auto bi set balu fetal kon xam ngeen ne ko dañ ko bëggoon ray gis ngeen fulbert samb ni mu deyee ni mu doyé war nek militaire nekkoon ci service renseignement bu militaire gis ngeen doomi ndayam ba Didier yi kenn gisu ko annonce wuñ ne dafa dee mais dañ ne dafa disparaître te kenn waxu ci gis ngeen François bu nuñ ko def yóbbu ko sûreté urbaine di ko torturer ba mu dee kon xam ngeen ne ñi fawuñ ñi fawuñ de dégg naa waa ji daf ne Ousmane Sonko remplacé ko moom jaral na ko dee te gis ngeen ne fu nekk nii ñëpp dugg nañ ci xeex bi ay xaritam doomam jabaram secteur boo jël ci Sénégal entité boo jël am na ñoo xam ne ñu ngi ci xeex bi di ko jàppale mais moom lu mu ko jaral mook ay nitam ba ne dinañ éliminer Ousmane Sonko ba ne dinañ assassiner démocratie sénégalaise bi ba ne dina forcer def troisième mandat par force toog jiite benn peuple boo xam ne bëggatuñ ko dañ ko vomir te amu ci droit troisième candidature am c'est anticonstitutionnel léegi nag dëkk boo xamante nii 17 millions d'habitants lañ ñu fal ben nit nit ki mandayam jeex du fi qui ki Sénégalais bëgg ont dina ko éliminer par force mais lépp ko mais jaral ëpp le peuple est souverain force restera toujours un peuple kon l'heure est grave Sénégalais nañ nous ñu jamarlo ak Macky mu may nit ñi réew démocratie la Abdoulaye Wade bi mu koy jox réew mi daf ko jox un pays stable jox démocratiquement bi mu ab amee Wade problème Abdoulaye Wade daf ko bàyyi jéem ko créer benn problème mu créer son parti dem à la conquête du pouvoir bi mu demee Sénégalais choisir au détriment de son ancien mentor Abdoulaye Wade mosu kaa sonal moom nag mu ñëw ne opposant du fi am parce que Ousmane Sonko bu génnee il draine des foules mais loolu yàlla la te ci moment boobu noonu muy interdire Ousmane Sonko di faire ay rassemblement di drainer des foules mais ay nitam ñoom ñu ngi def la même chose que Ousmane Sonko Ablaye Sow génne nañ ko démb muy def benn caravane Farba Ngom si jamono jooj mu ngi doon def meeting Kër Massar ay nitam lu leen neex la ñuy def moom bu ko neexee moom président tey mu yeewu rek ne dafay def tournée économique te tournée économique yooyu noonu daf koy mbuboo mais c'est pas de la tournée économique mais c'est de la tournée politique waa léegi Ousmane Sonko mi nga xam ne moom politicien la sénégalais yu bëri bëgg ko mu am programme sénégalais yu bëri gisi seen bopp kooku amatul sax droit léegi di dox ay activité politique comme ni mu ko neexee heure bu jógee ñu génnal ko gendarmerie te yeneen opposants yi ñu ngi jóg di dem di seeti seen ay nit di def seen ay activité politique léegi dem na sax ba ne ko léegi soo génnatee léegi ma yónni gendarmerie ñu ne la coppet jël la yóbbu sa kër ñu barricade buntu kër ga Ken dootul duggati même sa avocat sax amul droit dugg maître khouraji Ba dafa ñew di dugg keur Ousmane Sonko ñu ne ko do fi duggé né lool fan la am ci aduna bi légui ñu nar a di sétane loolu mané Sénégal cher patriote l'heure est grave ku japp né ku xex Ousmane Sonko ngay xexal da ngay nax sa bop waa ni gis nga limuy def ni bu soté wallahi yat dina dal ñëpp ku japp ne yat bi dal da ngay nax sa bop parce que dictature lu métti la ñi dund dictature xam nañ loolu gis nga ñu nekk Gambie nga xam ne soriwuñ ñu dund nañ dictature ak Yaya Jammeh lu nekk daj nañ ko dictature dafa métti ñàkk liberté dafa métti te gis nga xam nga li gën a garaaw ci Macky Sall lu muy def mooy ay nitam dañoo def lu garaaw a garaaw a garaaw ñii dañoo détourné def détournement de deniers publics ñii trafiqué faux billets ñii di violé ñii di rey ay nit te du leen def dara du mujj fen ñii dañuy def ay vidéo sax di menacer nit ñi ak ay jaase di saaga nit ñi ndey te kenn du leen def dara te ci moment boobu ñu ànd ak Ousmane Sonko dañuy sëq rek mu jàpp leen dem tëj leen. ak koo mën a doon xoolal ñoom Bassirou Diomaye fay ñëw fekk ko impo et domaine bureau impôt et domaine mel ni kuy jàpp si bandi ci benn poste bu mu def Fadilou Keita di posé wu la question ci deewu Didier Badji mu jàpp itam tëj boobu ba léegi mu ci kaso bi ñoom nit dof di live mer saaga mu jàpp tëj. jàpp ñoom euh, Ibrahima Gueye ne leer ñoom Diop Taïf Ndongo Diop ñoom soxna Ami Dia jiñ leen ay euh, force spéciale ak lu ne kaso gi dafa bëri ay xale yu Pastef ñëpp waa Pastef la ñu ci ëpp ak ay ñoo xam ne ay sympathisants wu Ousmane Sonko ay ñoom Lamine Niass bu nekk mbuur jàpp ñëpp tëj te gaay mi ñu ngi def lu gën a garaaw li nit ñi di def mais gaay mi dañoo def mu leer nañ ba nit ñi gis ko mais lu gën a garaaw mille milliards Covid yi nii nga xam ne euh, corps de contrôle. mom mo len épinglé cour des comptes mo len épinglé ne ñii dañoo 1000 mille milliards yi nga xamné mom lañ doon xeexee Covid 19 bi té lool sénégalais ñom ñoko dajalé état bi génné xaalisu sénégalais l'argent du contribuable participer sénégalais yu bari dajalé entreprise entreprises, homme hommes d'affaires, la société civile les sëriñ seeg ñëpp ku nekk cotiser pour ñu Covid 19 ñom groupe bu ndaw ñu jël ko sacc ko té gorom lañ ko joxone te ñooñu inquiété wuñ Madame, il va à leurs occupations quoi sans problème Marquis Sall ay bandi la àndal yoo xam ay délinquants lañ heure bii daf leen waroon a fekk kaso ñoom ay ñoo xam ne dañ leen a épinglé ci ay surfacturation ay kilo ñebe 4500. ci moment où nous muy rëbb ñoo xamante nii dañoo set wecc ay président Ousmane Sonko mais harcèlement bi muy def ci kawam ni harcèlement judiciaire bi acharnement judiciaire bi mais est-ce que président Ousmane Sonko dafa mérité loolu est-ce que ñeneen ñi mu jàpp tëj leen ci kaso bi ñoo dañoo mérité loolu parce que Ousmane Sonko la ñu àndal dafa bëgg a tiital ñëpp bu ko defee ñëpp ragal li mu bëgg a def mu def ko te loolu lu yëpp li ko waral mooy affaire troisième mandat bi gis nga bu ñu toogee di seetaan si mu denc président Ousmane Sonko na la ci këram genre résidence surveillée boo xam ne se illégal nga xam ne juge moo waroon a ordonné décision justice la waroon a nekk pour ñu def ko nit moom mu koy def te tegu ko fenn. bu ñu toogee di seetaan nag ba le premier xam nga sénégalais yëpp ñu ngi wax naan ay Adji Sarr amul preuve ak affaire bi leeru te gis nga loolu yoonu Macky Sall nekku ci le fait que Macky Sall jël dossier bi yóbbu ko chambre criminelle te dossier bi gendarmerie la waroon a yem bu leen ya bu leen bu ñu leen waxee ne Macky Sall dina setal Ousmane Sonko wallahi da ngeen nax seen bopp xam nga sax lii gàcce la ñu toog naan Macky Sall mooy setal Ousmane Sonko Macky Sall mooy tëj mooy tijji te normalement dëkk bo xamanteni c'est un état de droit justice mo war di tëj di tëj mais justice bi li ñuy def yu ci bari ci dossier politique yi Macky Sall mo leen koy sant bu ngeen togué nak ba le premier mu condamné ko ak nim barricade barricadé buntu kërëm non nag kenn du dugg kenn du genn billahi fofu la koy nan chopet jël ko yobbu ko kasso tëj ko ñu perte il est temps ñu jog jamarlo ak Macky Sall mu may nit ñi jamm baye Ousmane Sonko mu am jamm dox ay activité politique am loolu mooy mbir mi de bu ñu toog nii di seetaan l'heure est grave asalaamaaleykum wa rahmatullah